vraiment ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci def ay jéego pour feebar bi mun fi jóge te di ñaan yàlla mu gaaw ko fee jële musal ñu ci musal ci suñu njaboot yëpp mën na ko yàlla na ko yàlla def Sarr voilà donc euh, Famara sar man maa ngi juddoo Niodior je suis originaire des îles du Saloum euh, mais daanaka fii laa dëkk maa ngi fii Thiaroye sama fenn ngi fii donc euh, maa ngi au ministère de l'élevage il y a côté industrie laitière côté de également de donc je suis conseil ministre euh, c'est quoi votre lien? je n'ai pas choisi c'est Charo qui m'a choisi <laughs> c'est qui m'a choisi parce que a dafa def. Mhm.

comme m'a famille la ñoon fii man man na dëkk fi donc ma gis né, fi nga dëkk aussi fi vraiment ça doom juddi fii sa lépp nekk fi politique di dem di politique fo xamné fi ngay fanaan baye nit ñi falé pour man c'était un peu benen affaire la woon ma j'ai préféré euh, toog fi et puis bi may dugg aussi mu nané c'était ah, en fait en plus du fait que man président Macky Sall ni mu doon doxee ak li mu doon wax ak programme bi mu indi woon dama ci gisoon sama bopp mais également euh, population bi ñom ñoo ñew ne ma daal vraiment euh, gis nañu que yow amna lo loo mën parce que ci côté élevage bi ñu ngi lay gis ngay dem di ñew bon ma ngi doon jappelé xalé yi mécanicien yeeg sport bi avant avant politique bi ñew donc ñu ne ma daal gis nañ né euh, war nga fay mëna

nekk fi di di jappelé population bi té mëna am lénen lo xamné bo défé defee produit mën nga ko indi li ñu gisoon daal mooy nga dugg ci donc ma dugg ci mais en même temps suñu wa dëkk aussi ñëw nañu ne ma il faut nga ñëw pour jappelé comme yaa ngi ci APR il faut nga ñëw jappelé président Fallé parce que Fallé dafa xawa a tu vois donc euh, malgré le fait que fi laay milité mais damay liggéey aussi ak APR au niveau au niveau des îles du Saloum au niveau de la diaspora aussi euh, xale yu bari yi nag bitim réew tey ñu bari si sama loxo la ñu jaar ñenn ñi maa leen paasal ñu jëm ñenn ñi euh, si sama kër la ñu nekkoon wala sama kër frère benoon nañu dem donc euh, ñooñu aussi ci élection bu jotee surtout élection présidentielle yi liggéey naa ak ñoom liggéey bu bu mucc ay boo xam ne pratiquement ressortissant il yi nag ci biti yëpp également damay damay politique ak ñoom au au sein de la l'APR donc fexe pour ñu jàppale président de la république pour projet que nous avons ne nous pour y donc euh, vraiment plan Sénégal émergent bi nga mon mon moom nous dérouler dans les dans les dans les bonnes conditions Sénégalais. puisque c'est ci Pour ça c'était dans le cadre de mes études parce que en fait bi ma sama étude fii de pare dama un an et demi euh, j'ai fait un concours dans le cadre de la coopération entre la Suisse et le Sénégal pour devenir professeur ici au Sénégal. Ah, l'école nationale des cadres de Bombay voilà l'école de Donc quand j'ai fait le concours, j'ai été admis, madame Dijon Donc, je me je me bon, heureusement ou malheureusement, en tout cas, je me comme c'était prévu, parce que la coopération, je suis au Sénégal, à d'abord. Donc, j'ai rejoint la direction de l'élevage, je suis mon corps original avant mes Donc, je me suis aussi. Euh, un an également ma démarre ah, dans le cadre du du pour formation en économie donc euh, lolo moi navette nga ne dama entre la France et le Sénégal mais également aussi j'ai eu de très très bonnes relations ah, avec les organisations euh, paysannes françaises avec les structures qui sont chargées du développement de l'agriculture et de l'élevage en France donc j'ai pratiquement lepp lu ñu xewle donc damay dem fekkee ko donc lepp lu ma mën a indi aussi pour Sénégal ci côté coopération ah dama koy fexé ba indi ko pour mu mën jëriñ Sénégal. Ah, justement euh, parce que mun naa ne tey euh, ñu jëlee domaine par domaine boo seetee par exemple domaine élevage bi nga xam ne man maa ci yëngatu maa ngi ci maa ngi ci yëngatu mooy sama mooy sama métier boo seetee caare fi presque amul kër gooy dugg te amul amul amul xar ñëpp ay élevé donc lolu motax bi nga xamante ñewna ñëw naa euh, commencé naa di lëkkaloo ak ñom di di di len organiser di len taxawar ay ay association d'éleveurs pour que non seulement ñu mëna a profiter ci li nga xamné euh ministère de l'élevage mo koy défal sammi ci biir dëkk bi ah, mais également ci coopération bi nga xamné amna ko ak biti ma mëna a aussi ba mu leen ci jappalé tu vois ay équipement ay financement ay affaires de demee noonu loolu yëpp bokk na ci projet yi nga xamné tey bu yàlla defoon ba ñu dem ba toog ci mairie bi loolu yëpp ay lëkkaloo yor doon yoo xam ne ci côté formation renforcement de capacité ci côté échange d'expérience yooyu yëpp naa projet yoo xam ne ficelé nañ ko ba pare pour que ay ay retraité di jóge fale di jàppale euh, xale yi nga xam ne ñu ngi nekk fii ci élevage bi mais également ñuy jël ay xale fii di leen di yóbbu ñuy xool li nga xam ne mu ngi xew foofu pour gën a renforcer seen man-man pour que élevage bi nga xam ne ñu ngi koy def ci kër yi te léeg-léeg dañ koy def nii passion mais liñ ci war a gagné duñ ko gagné bu baax nous vraiment gagné parce que métier donc côté aussi côté côté euh, social bi amna ay ay projet aussi également ci va euh, coopération yu am côté jeunesse par exemple agglomération Grand Lyon nañu vraiment pour jappalé pour espace aménager nga xam ne ci même espace bi dañ koy def espace à étage tous les sports que les jeunes font au niveau de la commune mun nañ ko fa def te xale boo xam ne xarañ na ba ñu ràññee ko mun nañ ko jël yóbbu ko à l'extérieur mu mu nekk fa di ci di ci di ci liggéey di ci daan dooleem ba mun a dimbale famille am euh, ci côté social bi également euh, fi ma doon liggéey fa dee en logère euh, am na projet boo xam ne taxawaloon naa ko ak ñoom pour ñu mun ñu jàppale defal ñu benn maison boo xam ne màggat yi nekk fii te coono ñenn ñi amuñu amatuñu amatuñu doom yu leen mëna topato amuñu vraiment soutien te continuer di liggéey ñu leen di gis ci tali bi ah, di leen gis ci biir dëkk bi ñooñu ñu mëna fexé ba fofu ñu am fa fuñ fa dëkk tu vois euh, ñu leen di topato di leen di faj di leen di jox lépp loo xam ne soxla nañ ko bu bëccëgee ku nekk dem fu la neex sa kër mais bu heure lekk jotee wala heure fanaan nga ñëw nekk dans de très bonnes conditions boo feebaree aussi ñu jël ñu jël la en charge et puis loolu dafay tax ba xale yi ñu créer des emploi parce que les jeunes filles jeunes garçons di di de di sont donc c'est aussi def nañ fait. côté pêche également comme là donc euh, association des Sénégalais de cette, euh, xam zone de pêche donc on a couru une fois dans pour matériel de pêche surtout des moteur hors donc loolu bu ko indee am na association yi nga xam ne ñoom ñoom nank nank pêche bi fii euh, géej gi fii ñu ngi am na ñu ci doon commencé liggéeyal pour que matériaux bu ñëwee dañ leen koy may mais ñoom mën nañ ko jaar seen biir prix bu yomb def ko ci seen kees di ci dimbale ko boo demee géej te jàppuloo amuloo loo jëndee carburant mun nga dem ci kees bi ñu lebal la nga dem mbaal boo paree nga ñëw remboursé également comme gis nañ ne géej ak accident ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo ànd mu am ñoo xam ne dem

demoon nañu Rotterdam waxtaan ak euh, mairie bi ak suñu suñu suñu xalé yu nekk fofu donc y a mo jeune frère qui est là-bas et sa femme qui sont médecins donc euh, biñu ñu fofu yobbu yóbbu nañ ma ci commune bi ñu waxtaan ba gaay yi nee dal en tout cas ils sont prêts à venir aussi jàppale ñu pour ñu assainir dëkk bi def ko pavage mais également def ay tuyauterie yo xamné da fay génn géej pour que bu tawé lu mu taw taw 15 minutes après ben ndox dootu fi taxawaat donc xam nga loolu

de santé yoo dañ koy tas ci biir bi tu vois donc également euh, par nañ ko def nga tout le matériel également euh, mairie bi personnel bi nga la mais le li équipement c'est lay donc loolu dafay permettre euh, budget également budget mairie ñu am orienté fu dul ci infrastructure Waouh, c'était aux dernières élections législatives, 2014. Euh, li tax doxul en fait guerre interne xam nga ku xam politique parce que mon appel là, responsable là. Euh, dañu doon liggéey di ligue, di ligue, di ligue, di dernier moment presque à un mois de la confection des listes problème a commencé am daal ay coups bas yu nekk ci biir ba ñu dem daal ba ñun gisatuñ ci suñu

ki fi nekkoon maire muy jaga yàlla jeexalu fi ceebam mu continue parce que non là, laa ko mën a parce que même moom ci boppam gëmuloo ne dina fi toog mais par un concours de circonstances mu ñëwaat donc euh, loolu dal li tax doxul woon nag moo don ñun bu ñu génnee c'était à un mois que presque le gros de notre électorat feneen la ñu voter voté donc on n'a pas eu le temps de faire les transferts nécessaires donc pour que ñu et puis également xam nga lo boy liguey, di liguey au sein d'un parti pendant des années donc façon investissement humain bu nek nga def ko façon social bu nek nga def ko Bo démé bé bé ba élection ñëw nga nga dem def sa liste bopp nit ñi ñi nga xamné sax euh ñi doon ànd ak yow fuñu dem bu leen lañé ñu né ñu nak Famara ñoo and. fekk ànduñ donc finalement bu démé bé ba vote aussi ci biir euh, bulletin yi nit ñi fi la xamone ku lay votel voter, lay votel foofu du la votel fi nga xam ne foo ak carte boobu nga présenté on n'a pas vraiment le temps vraiment de mieux préparer de mieux préparer ça mais on a on a tiré beaucoup beaucoup beaucoup de leçons yoo xam ne yaakaar naa ne ci élection yi ñëw moom euh, ça va être autre chose